ma dëkk Thiès di doomu Thiès ma gis jafe-jafe yu suñu mbokk yi di dund Thiès muy inondation bu metti bi nga xamante ne gis nañ ko Medina Fall Kawsara Këri Kaw Ngent Sompaate ak cité Ablaye Yaxin may doomu Thiès suñu boroom am as lu ma dénk ma jënd ay moto pompe ñëw jox ko administration territoriale bi bi nga xamante suñu gouverneur bi moo ko jiite mënoon naa def comme li ñenn ñi di def def une forte mobilisation politique dugg fi nga xamante ne moo tax ma filmer sama bopp jël moto pompe yi jox ko responsable yu ma neex su boobaa non seulement maa ngi nax sama bopp mais maa ngi nax ñi nga xamante ne dama jóg pour dimbali leen ma jàpp ne politique boobu dafa war a weesu parce que ab réew dafa mel ni ab kër. dafa am bunt kenn du gis ab kër di jaar ci ab palanteer moo waral ma jël jumtukaay yi jébbal ko gouverneur pour mu jox ko les sapeurs pompiers li tax ma def li ñu mel parce que man personnellement mënoon naa ko jël jox ko samay responsable mais tey boo ko joxee Paul mu takkaloog Antoine kër te jubawuñu Paul boobu mun na koo xañ Antoine wala nga xëy suba ñu naan la wala ñu xëy suba ne la gasoil bi jeex na wala gannaaw suba ñu ne la sàcc nañ ko ma jébbal ko gouverneur pour mu jox ko sapeur yi nga xamante ne ñëpp xam nañ seen xariñ si wàllu boobu moo waral li waaye nag am na ñoo xam ne dañ koy utiliser pour ay positionnement politique ku mel ne Ousmane Sonko ma jàpp ne tey mu war a taxaw apporter des solutions que muy ŋaññi opposition bi nga xamante ne moom nee na fa la bokk loolu war naa mun a tey xel askan bi tey xel nit ñi parce que sa gànnaaw moo taxawoon ne ñi nga xamante ne ñoo yore Sénégal ñu soppi vision wu Sénégal tey bëkku investisseur bu taxaw bëgg a ñëw Sénégal nga taxaw ne ancien président yooyu muy Senghor muy Abdou Diouf wala Abdoulaye dañ leen war a tey nga ñëwaat di ŋaññ ñi nga xamante ne yéen a bokk kuréelu politique bi kooku war nañu xoolaat taxawaayam parce que dama jàpp ne politique war ñu koo las war ñu koo nas si ay sos war ñu koo nas si dul si ay tuumalaate wala di nas ci la nga xamante ay waxu nas xandang la mo waral mane naa profité pour tontu ko xamna nak yenn leaderu opposition bi du caagane dañoo ragal dañ ko ragal wala dañoo ragal ay ñoñam fi dor fay mo fi nek xas ñu delo la wax ju ñaaw nak ñepp ko mën may wax sonko nak na arrêté parce que nak jotna mu arrêté waaw bu arrêté lum ci déggu aussi nonu la man de toute façon man je suis membre du front de résistance nationale qui est connu et reconnu si toutefois que aussi mu qui si opposition bi que dana xam ne lu donc c'est ça parce que nag gënul ne gënul nekk nit patriote gënul bëgg kenn ñun dañoo bëgg amul lenn lo na nit ñi amul gis ko les faits sont là donc ku mel du politique wala bëgg taxaw di tuumal ay nit pour fël mel ni moom moo gën nit ñi wala moo gën a judd nit ñi wala moo gën a ëppale nit ñi Sénégal or que ñun lu ñu daj si réew mi moom xaaj bi daju ko na arrêté il est temps na